Beriang Taka ci biir. Mourad. duñ jël monsieur le maire. ah duñ jël monsieur le maire. monsieur le allo suba léegi nga. Thank you. biñ ko jox de yëpp benn bu ne am na décharge décharge yaa ma tey ak date biñ ko bindee lépp bind naa ci la ma six fois ama cinq fois asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo xamante ne dañoo gis problème ñoo xamante ne moo nit daal bu tax benn mais li ñu

laaj yow. daa war a ñëw waaw. Thank you.